mooy indi ay nit ñu bees euh, ñoo xamante ni voilà mosuñu gérer euh, mbirum état fii ci Sénégal euh, bu ma juumul Bassirou Diomaye fay aussi mu mel ne ci boobu l'essence la aborde aussi insister ci ay valeurs valeurs yooyu noonu tey jii est-ce que du moom moo war a tax ba Sénégal changement bi nga xamante ni sénégalais ñu ngi ko doon xaar ñu gis ko. xam nga Bassirou Diomaye Faye dafa wax benn affaire boo xam ne man pour man dafa am solo. Mhm. dafa wax ne ñi ko tànn. dañ koo tànn pour rupture. rupture mooy li fi nekkoon. Mhm. ñu bàyyi ko ginnaaw defee neneen. effectivement Sénégal euh, dafa am nu ñu tàmm ñu di defee. di defee politique mhm. di di di di ko gérer suñu pays. ba dañu yaakaar ne leneen mënta nekk. Mhm. xam nga wolof mooy wax ne tàmm laago la. c'est-à-dire que on est des hommes politiques faire des choses que ñun finalement on pense que am na yenn yi mënta nekk Sénégal. moo tax ngay dégg ñenn ñi ñu naan la pouvoir su nekkee ci loxoy Diomaye Faye moo soo ko léegi seen diggante commencé ñagas. Mhm. c'est parce que ñun dañoo miin loolu ci Sénégalais yi en fait. Mhm. dañoo mhm. miin ci bu ñu yóbbu Ibrahima Anne pouvoir moo Moustapha suñ commencé gérer pouvoir rek commencé jàppante. c'est pourquoi ñu bari di xalaat loolu wala di ko njort mais dama wax ne le Pastef quand bi mu juddoo ba léegi j'ai l'impression que ni ñun journalistes yi wala chroniqueur wala ñeneen du ñu jàngat dëgg-dëgg Pastef ak ni muy doxee. Pastef lépp loo xam ne ñun dañ ko tegoon comme ay code wala ay grille di ko laaje di ko lire l'actualité di ko analyser les relation avec les gens ñoom dañ ko dindi Sénégal gii il faut nga accepter que ni le Pastef et les autres partis yamuñu il faut nga accepter que ni Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko et les autres hommes politiques yamuñu à partir du moment où tu acceptes di nga mën a xam lan moo tax ñoom ñu insister ci ay valeurs ñoom ñu insister si Euh, sénégalais yi d' abord avant ñuy insister ci seen bopp. Mhm. je dis pas que noonu la ñuy gouverner ah parce que xamaguma dara commencé ñu gouverner mais damay xool li ma constaté boobu ba léegi boo xoolee diggante euh, Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko la nature même de leur relation n'a rien à avec les relations yu ñu miinoon ci parti politique yi. Mhm. parti politique yi li ñu gisoon mooy Mame Birame mooy chefu parti bi moo moom permanence bi moo moom chaise yi. moo moom mhm. militant yi moom ñëpp. kooku mënoo wut keneen mu koy jiite. nature relation bi nga xam ne moom la maam Birame di am ak Ibrahima même si Ibrahima est numéro de son parti Ibrahima taalibeem lay doon. Mm-hmm. Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye leur relation nekkul loolu. Mm-hmm. ba pare en en plus de ça mu am nag des relations humaines yoo xam ne moom moo leen boole et qui n'ont absolument rien à avec la politique man moo tax ma rafet njot seen diggante beneen bi mooy Ibrahima wax na ko léegi et Thierno tu as raison d'insister sur ça suñu njëriñ ñun sénégalais nga xam ne bokkuñu Pastef mm-hmm. suñu njëriñ mooy. Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye continuer di ànd nekk maître nekk mburoog soow comme ni ko Macky Sall doon waxee. pour mhm. gouverner ce pays. Mhm. loolu mooy suñu njëriñ. parce que bu amee un contentieux entre les deux même bu ñu dee jël ñaari fan pour régler ko dina tarder réew. bien mhm. te ça va pas se ci ñaari fan. ça ça me semble important beneen bi mooy. tey ñu bari dañ naan wéy euh, Ousmane Sonko lan mooy nekk rôle am à partir du moment où gagné nañ ba pare man j'ai posé la question à Diomaye Mm. il m'a dit moom il ne comprend pas pourquoi on lui pose cette question mm-hmm. parce que lu tax waxuñu ko lan mooy nekk place El Malick mm-hmm. wala lan mooy nekk place Biram Souley lan mooy nekk place pour dire que pour ñoom le plus important c'est pas les noms mm-hmm. mais bu ñu fàtte ne Sénégal ñun dañoo def loo xam ne àdduna ba àdduna ba daj lu rek ñoo ko fi def moo tax ce pays sera gouverné d'une manière boo xam doo gis ci beneen réew xam nga lan lañ def ñun doo gis ci beneen réew muy lan mooy ñun président à travers une autre personne c'est-à-dire que Ousmane Sonko nous a demandé ne fal eh, les Sénégalais. Mhm. Ousmane Sonko leur a demandé fal leen Diomaye ñu fal Diomaye. Mhm. lan la Diomaye man ak lan la xam ak c'est pas leur problème Ousmane Sonko l'a demandé ils l'ont fait de la même manière ma gis ne ni ñu nar a gouverner réew mi du bokk ak ni ñu ko daan gouverner. Mhm. te bu ñu waxantee dëgg. Ibrahima mi ngi koy rappelé léegi. ñun Sénégal bi ñuy départ suñu indépendance. mais suñu réew mi kenn ko kenn gouverner wu ko nii ah. c'est vrai dañ ko il s'appelait Mamadou Dia. Mhm. ñu ko daan wax président du conseil mais mhm. c'était un premier ministre. Mhm. il était fort c'est lui qui tenait la pouvoir. il avait la réalité du pouvoir. waaw loo loo tax sax quand quand di ko bi ñu ko jiiñee coup d'état mu ne. mu ne non moom il n'a pas besoin de coup d'état parce qu'il a tout le pouvoir waaw. voilà il a le était président de la République. moo tax man tey du ma bett ëllëg ñu ne Ousmane Sonko mooy premier ministre. oui il détient le pouvoir. Diomaye fay nekk président de la République du Sénégal et loolu keroog ñun vendredi dañ ci waxtaan ak Idrissa Seck. Mhm. man ak Pierre Idrissa Seck ne moom bi mu nekkee premier ministre Wade lui avait transféré l' essentiel de se pouvoirs. Mhm. pour muy gérer l' état dëgg-dëgg. Idrissa Seck yokk ci benn mu ne malheureusement yàqkat yi ñoo ci dugg. Mhm. donc Sénégal ñun li nga xam ne moom lañ tàmm gis depuis que Mamadou Dia ak Senghor tàggalikoo ba léegi. moo tax ñu yaakaar na ñun leneen wërta mën a nekk lu dul am président boo xam ne comme buur lay nekk. il a tous les pouvoirs il peut faire ce ma ne Sénégal ba muy départ déparé wul woon noonu te ñëpp dañuy wax ñi jàng politique ñëpp di ci bind. <laughs> les historiens yëpp ah, dañ koy wax que ni le couple Senghor Mamadou Dia. bu tasul woon Sénégal nekk un pays développé. ñëpp ko wax ne la couple Senghor Mamadou Dia bu tasul woon Sénégal nekk un pays développé. donc li ñu war ñun mooy ñaan. le couple Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye bañ a tas. ñoom ñaar nag nan la ñu yore réew mi on verra dans comme ni maam bi nag bu ñu nommee gouvernement bi dinañ xam fan lañ jëm. Mhm. waaw mhm. leneen sax li ma si bëggoon a dolli. oui xam nga Mamadou Dia ak Senghor yaakaar naa ne euh, seen i idéologie sax bokkul. c'est bokkul seen i gis Mamadou jaar suñu ko bàyyi woon tuuti Russie lay gën a jege. que les français yi mm-hmm. mm-hmm. yi dafa mel ne loolu la ñu ah, comprendre anticiper ko. ñu dugg ci diggante bañ ci yegg. Mm-hmm. te en plus premier ministre bu yor pouvoir président bi nekk quelque boo xamante nii rek place honorifique lay yor. mu war d'Angleterre. Euh, mooy loolu moom am Europe. Europe l'essentiel des pays noonu la. à part France moo am benn président la République. bu dogal lépp. France mm-hmm. te France le premier ministre a a des pouvoirs ah. c'est lui qui voilà. a des te il est euh, comptable devant l'assemblée. l'assemblée mm-hmm. c'est pas le président euh, très bien. Mm-hmm. mais yeneen dëkk yëpp boo fa demee ay chancelier allemand lañ lay wax premier ministre italien doo dégg président bi. fekk Belgique Angleterre am nañ ay président. du ñu xam président bi sax. ma ngoog Senghor noonu la a doxalee nekk boo xamante ni day gérer un poste honorifique. pouvoir di ko doxal. mais dem nañ ba ci biir xam ne Mamadou Dia politique yi lii muy teg nii su ko continuer ñun ak France dinañ séparé wu. Mhm. ñu anticiper loolu jaxase ko. Mhm. je ne crois pas que ne ñu ngi ci même schéma bi ak Ousmane ko ak Diomaye. ñaar ñi ils ont les mêmes idéologies. Mhm. ñoo yor les mêmes valeurs. àndandoo di militer pendant de dizaines d' années doog a yegg si. ison la ils la même formation. waaw ils ont la même formation. ñu dem euh, déglu Théo dafa am lu xew fële ca banlieue ci Pikine. benn xale bu yoosu turu Mohamed Diop dëkk ci Pikine tali bu bees ci quartier Daaru faatuñu ci anam yu doy waar moo jaaxal.